ñëwee nañ ci dikk bi ñëwin woo xam ni du ñëwin woo xam ni wunu gëna la parce que ay nit ay euh, responsable ñi nga fekk leen seen biir kër ñi nga fekk leen seen biir néeg ñi nekk ay mag ba mu xaw a ëpp ñi nekk ay xale ba mu ëpp ñeneen ñi nekk ci diggante bi nga jàpp yóbbu vraiment loolu bu ñu nee neex nañoo neexuñu te jot naa ni loolu neexul président tamit jot naa ni loolu neexul président kon président d'abord ñi ngi koy woo ci lii suñu doom yi nga xam ni ñi ngi leen téye ci kaso bi neexuñu te it li ñu jot mooy téyewuñu leen ci lu ñu leen war a téye te it mboolem ku ñu téye foofu kenn ku ci am na ci ñoo xamante ne nii bu ñu jógee seen kër bu keneen ñëwul dimbali leen ci dépense duñu duñu dépense parce que ñu nga toog di xaar kooko ndax moo daan moo yoroon kër ga kon bu ñu tëjee seeni doom dina leen metti trop kon li ñuy ñaan président ak kilifay diine yi ak mboolem koo xam ne yaa ngi dégg ci lii te man cee def médiation nga jàpp ci ak li nu gënal daal te gënal nu mooy sunu doom yee ñu bàyyi leen liberté totale boo xam ne ni du ànd ak benn condition kon loolu ñu ngi koy ñaan d'abord di wax ni itam euh, ñu ngi ñaan président ba léegi ak monsieur ministre Aly Ngouille xam nañ ni usine bi bu fekkee def nañu ay gëstu dëkk bi bu fekkee am na ci ku ñu embauché du passé kenn ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci usine bi seenu liggéey passewul gardiennage gardiennage googu amul ku ci weeram foor foor foor foor ba passé 60 000 francs xam nga loolu tamit boo ko seetee 60 000 francs moom yurul kenn da nga koy boole ak leneen doo ko mën a yor sa njaboot sinon bu dee loolu rek ci toroxte ngay dëkk kon tamit loolu ñu ngi koy dugal ci biir xam ni usine ak nu mu mën a demee ak même bu ñu yëkkatee ñu dem feneen ak bu nu fi bàyyee suñu njaboot gi fi nekk di ay ay cadre nekk fi ay intellectuel nekk fi yoo xam ne nii lañu fa nekk la ñuy def ñi fii mën nañ koo def normalement war na gën waroon naa fekk ñuy am ay personnes yu bari yu fan te door naa loolu bu amoon sax lii du am parce que nit léeg-léeg mu mer ci xolam loo xam ni la muy génnee la ko jiitooy tax kon loolu doon na loo xam ne neexuñu